Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous privilégié point du jour, juste après la conférence du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour voir avec nous ensemble l'évolution de la pandémie ou l'épidémie coronavirus au Sénégal. En ce lundi 18 mai 2020, justement, je m'en vais rapidement vous donner ce jour, le point du jour de ce lundi. Retenez tout simplement que le ministère de la Santé a procédé à, à justement essayer en échantillon des 1172 tests finalement. Sur les 1172, les 64 sont revenus positifs. Il s'agit donc en taux de positivité de 5,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 59 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 5 cas communautaires enregistrés aujourd'hui. Ici, justement, des grands Yoff en cas, Gamiadio en cas, Fatik en cas, Touba qui revient encore ce matin avec deux cas communautaires. 103 patients déclarés guéris du jour. 11 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais, notamment en réanimation, à l'hôpital et dans les hôpitaux sénégalais. Justement, ces jours, globalement, le Sénégal compte finalement 2544 cas déclarés positifs, dont 1076 guéris, 26 décès. Donc, le 26e décès, justement, c'est hier, avec notamment une dame âgée de 71 ans, habitant à Djamagen, qui est décédée finalement. Donc, finalement, aujourd'hui, on a encore 1441 personnes sous traitement dans des hôpitaux sénégalais. Voilà pour ce qu'il fallait retenir justement concernant la situation de point du jour en ce lundi 18 mars 2020. Avec moi sur ce plateau, comme chaque matin pour le point du jour, le grand Serigne Serigne Saliou Beng, Serigne Beng, Assalam alaikum. Alaikum salam. Ba ngi am jàmm. waaw sant nañu sa weekend bi neex na de. waaw weekend bi waaw <laughs> tëngeñ <laughs> ngi fa ñi ngi si jàmm Xana xanaa def li ba li nak moy gel antiseptique. de ci am solo lol lol lol jamono gi ñi tonni nii tamit ngeen ni tamit euh, tak seni seni seni maski seen di ci am solo jëfandikoo gel antiseptique ngir raxas seen roy ak tamit ngeen jëli seen maski de di am solo mun nañu éviter maladie bi rapidement Serigne Saliou Mbeng voilà ci eh, langue locale bi euh, maanaam wolof bi ci révolution tay ji febar ji jàngoro coronavirus. waaw tay si altine ji Sénégal def nañ jouni ak témèr ak juróom-ñaar fukku ak ñaar ci ay test mhm. yi ñu réaliser euh ci lim bobu juróom benn fukk ak ñeent ñoo am doomu jàngoro ji. Mhm. Euh, juróom fukk ak juróom ñeent cas contact. Mhm. maanaam ñi nga xam ne dañoo laale ak ku am doomu jàngoro ji. Euh, juróom ci ay kaa communautaire ki nga mhm. xam ne dafa am doomu jàngoro bi te xamul fan la ko jëlee. téeméer ak ñett ci ay patients ñuy tëddoon ci lalu hôpital yi ñoom koo ñoom wér nañ. Mhm. Euh, tey dinañ ñibbi seen i kër. Mhm. loolu muy nouvelle boo xam ne euh, lu neex la. Mhm. maanaam euh, lim boobu mu ngi fiy doog a am. lim boobu ñoom ñu wér. te yàlla na continuer. ñoom junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn. ci ay. ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu ngi leen di traité te seen wér gu yaram mu ngi am tan bu baax

amatul kaa contact amatul cas communautaire. amatul benn cas daal amatul benn cas jeex na. corona bi bàyyi ñu dem ñun ku si nekk. Mhm. continuer sa activité. Mhm. parce que euh, santé bi corona bi dafa ñëw di ñu digal pour ñu set ak yooyu. te mhm. set googu noonu suñu diine gi moo nu ko njëkk a jàngal. amaana sax. Euh, suñ ko respecté woon avant lii yëpp euh, du ci am. même bu corona bi jeexee drapeau l'islam voilà vert hmm, ak euh, euh, blanc hmm. loolu euh, set la hmm. bu corona bi jeexee tamit ba kaa yëpp ma sha allah dañu wara di continuer di set di continuer di di laab tamit c'est vrai que amnañu 103 guéris mais cas communautaires yi tamit bari nañ ci 5 cas communautaires juróom cas communautaires tay tey Touba am na ci ben ñaar

juste ko rek ñun ñoo war a jël ku si nekk jël sa responsabilité. Mm-hmm. xam ne lii doonatul affaire de Euh, état wala doonatul affaire de euh, ministère de la santé. Mhm. les ku si nekk yaa mhm. jël say mesures. Mhm. respecter li nga xamné ne moo nga wara respecter respecté. jël say taxawa démb tamit amon nañu ben ben nouveau décès manam nakou guen aduna ñak bakanam ba ci walum jàngoro ji coronavirus motax tay 26 décès la ñam finalement té boo xol 26 tamit c'est salut, salu si c'est extrêmement important am nañu 11 cas graves en réanimation. onze cas graves en réanimation am loolu tamit euh, dafa xaw doy waar. waa doy na waar trop euh, ñuy euh, jaale ñi nga xam ne. Mm-hmm. Mm-hmm. fameem mm-hmm. ki nga xam ne moo ñàkk bakkanam démb. jàmm jaale fameem waaw yàlla na ko yàlla yërëm. alhamdulilah xaare ko àjjana. te yàlla na fi yem. yàlla kenn deseteeti. lépp na fi yem. waaw mais mbir mi daal. nag ku nekk jël sa responsabilité. amaana tey jii nii dina fi jóge. lolu rek la fofu lañ toll. ku mm-hmm. nekk jël sa responsabilité xam ne lii mbir mi sa mbir la. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que fagaru. moo gën faju faju on le dit souvent. xoddeeku balaa ngay lakkale moo ngi noonu. fagaru moo gën faju kon mbokk yi affaire bàyyi noonu dëgg yàlla xeex bi moom dafa mel ni xeexam ñëpp la ku nekk d'avoir war a dugal comme ça ñu mhm. gagné euh, maanaam corona coronavirus du xeex ma nguur gi mhm. du ma ou euh, gi wala député non chacun tout un chacun justement a un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui mhm. dans cette lutte contre l'épidémie coronavirus il faudrait que chacun le fasse son son son affaire évidemment et c'est ça passe par le respect évidemment des mesures sanitaires édictées par les services du ministère de la santé et de l'action sociale ça passe par le respect justement du port de masque, ça passe par le lavage des mains avec des gels antiseptiques, comme vous les voyez avec nous sur le plateau, avec notamment nos partenaires, hein, nos sponsors qui nous accompagnent d'ailleurs tout au long de, ce, plateau, de cette émission. Si vous avez également, hein, vous, des produits vraiment que vous voulez faire savoir, vous voulez vraiment faire quand même connaître aux populations, passez par là, comme ça, on verra un peu la modalité vraiment quand même pour vous accompagner évidemment dans vos produits et avec notamment des publicités ou bien voir un peu vraiment la promotion de vos articles. Voilà, Serigne Saliou tay jeex sa kaddu mujj wala ñu wala ñu tej jotaay ji tay waaw kaddu mujj gi rek euh di waxat la population. Mhm. ñu respecter les mesures de prévention. Mhm. di utiliser masque yi. Mhm. fu ñuy dem ñu takko ko. di raxasu ndox ak saabu saabu ñu génnee ci kër gi ba duggaat. di utiliser gel antiseptique yi ndax am na ci solo trop mhm. limiter suñu déplacement yi mhm. Mhm. ndax euh, farata rek moo ñu war a génne lu dul farata euh, waroo ca dem même bu dul euh, corona sax loo xam ne du farata waroo ca dem Merci beaucoup, Série Salou Meng. Ce hein, lundi 18 mai 2020, c'est justement cela qui met fin à ce plateau point du jour. Mais avant de vous quitter, comme chaque jour, rapidement avec le rappel pour ceux qui ne nous ont pas justement pris au début, c'est Juste tout simplement pour eux, retenez tout simplement qu'au Sénégal, aujourd'hui, on a finalement euh, testé 1172 patients. Ce quatre sont revenus positifs aujourd'hui. Il s'agit des 59 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 5 cas issus de la transmission communautaire enregistrés entre Grand Yoff en cas, Diamniadio en cas, Fatik en cas et Touba. 2 cas ce matin. 103 patients hospitalisés guéris également selon le ministère. 11 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais en réanimation. Nous prions vraiment pour euh, une bonne santé, en tout cas propre rétablissement à eux les patients. Aujourd'hui, globalement, le Sénégal compte finalement 2544 cas positifs euh, dans le pays, dont 1076 guéris, 26 décédés et donc 1441 patients encore sous traitement dans les hôpitaux sénégalais. Voilà pour ce qui met fin à ce point du jour. À ce lundi, justement, 18 mars 2020, on se retrouve demain dans un nouveau numéro point du jour, juste après le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais d'ici là, respectez les mesures sanitaires édictées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Restez chez vous c'est pour également sauver des vies. Oui, nous pouvons le faire tous contre l'épidémie coronavirus. Madame Ramadan Karim, excellente suite de programme sur la Jeune 7 TV, mais également à travers nos applications sur les réseaux sociaux. À demain. Au revoir, au revoir. Merci tous ensemble contre l'épidémie coronavirus.